aji saar mu sol robu waxam dagg ci musóoram tàkk maskam yore biteelu ndoxam di dëgg tànk yu dëgër di waaxu di dugg ci watab katkaatu police bi waa police dar ko escorté ko photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk l'observateur Alioune Badara Seck bu l'observateur mi ko photo nañu photo boobee démb la woon bi aji saar ak gis bu huitième cabinet bi bay génn maxali njaak ndoy bu l'observateur jël moom it xalimaam di ñu wax li mu xam ci audition um ba tàmbale def Seck auditionné na ko Adji Sarr déglu ko ci yëf yi ci xóotal waaye aji nëbbul ay waxam nekk ko fay di laam-laame li mu ne moom la ko Ousmane Sonko def ak na mu ko ko defee ba mu koy nittali zis bi digg bi la doon jaar wax na ba wax zis bi ne li mu yàkkamti moo di jàkkaarloo ak Ousmane Sonko journal Les Échos moom it xëy dikk ci audition bañ doon auditionné Adji Sarr démb ca tribunalum Dakar ba wax ñu ne giseem baak zis bu huitième cabinet bi def na juróomi waxtu waaye moom Adji Sarr la mu waxoon ca kanamu sàndarma ya dindiwu ci lu toll ne tar fatal ay ni Sidi Ahmed Mbaye mi ñuy tudd ci wax ji Les Échos wax nañu ne moom talaata ji di ñëw ci lañ ko war a auditionné déglu ko borom salon Sweet Beauté di Ndeye Khady Ndiaye moom it les éco ne nañu semaine yii di ñëw nar naa doy waar ci moom keneen ko ay mbiram nar a moo di njiital parti Pastef Ousmane Sonko la si nañu mbalaanum kiir lay di immunité parlementaire ba tey ji ci la nar a ak moom dañu koy dindi te ci moddu fast track lañ ko fas yéene defee maanaam wasa wasa libération nañu àjjumay tey ji àjjuma joo xam ne Ousmane Sonko du ko gaaw kenn du ko futtee noone Sonko ma ngay jafandu ci ab manton ba léegi mooy li journal quotidien bind ci xëtamu njëkk ba wax ñu ne démb ca la doon janoo ki taskatu xibaar doon defi déclaration fa la waxee ne moom Sonko moo ne woon bu ñu dindee immunité parlementaire am 10 heures 10 heures 5 mu dem wuy ji justice léegi nag moom Ousmane Sonko daa dematul fenn ndax anam yi gaa yi jaar ba bëgg lever immunité parlementaire am daraa ci jaarul yoon Ousmane Sonko ne fenn laa demul duma dem di wuy ji ab zis bu yambar boo xam ne ab sikkim la rek fu mu nekk gestoo ko fa bàyyi Le Quotidien nañu waaye moom Sonko su maytuwul dana wax ba dugal boppam

ci wetam xeexle ko sud du côté résistance moom la Ousmane Sonko woote nee na Macky su ma bëggee sànk na ko defal boppam yéenekaay bi nañu moom Ousmane Sonko démb ca wax jaag waxtaan wa génne na li nekk ci message mu di SMS bi tax mu jàpp ne mbir yi ay complot ñaawlu na taxawaayu ñett ñi mu di doyen des si Samba procureur de la République Serigne Bassirou Gueye ak juge d'instruction huitième cabinet di Mamadou Seck jàpp na ne ñett ñoo Ousmane Sonko di defub déclaration ngir di wax ci mbiri Adji Sarr nee na moom Sonko pare na ngir lépp lu mu ci góobe rek dina ko gar constitution bi moo ko may sañ-sañu taxaw ñàkkante ko da koy jëfe ba mu mat a wuy dem jëli ko fa la te bu booba mandat dépôt ci topp sur soit topp kaa bi di ñu wax mbir bu demee ni mu demee nan la ci justice bi war a demee ñu dem ci soleil national mi xëy ci président national mi toog ca palais national di ñàkk ñàkku-ñàkku national ubbil yéenekaay bi ñàkk yi ñuy ñàkk nit ñi ngir àl leen ci coronavirus bi yéenekaay bi ne nañu président de la république Macky Sall jël na bosam démb ba wax ne yoon la ñu bëgg wane ngir ñëpp xool ci ñun ba dem ñàkku ji la séenekaay nañu yamu ca ndax wax na waa réew mi ne bu ngeen bëggut a ñàkku danaa jëlaat ñàkk yi di vaccin yi dem may ko réew yi ko soxla suur soi nañu ci xëtamu njëkk tonton Macky mer na nag